waaw maa ngi leen di gërëm tey mooy date anniversaire manufacture sénégalaise euh, le 4 décembre 1966 ci la président Léopold Sédar Senghor ñëw fii cees ci quartier dixième inauguré la manufacture nationale de tapisserie tey mooy bésu anniversaire cinquante ans après donc yaakaar nañ ne bés bu rëy la ci communauté artistique bi bés bu rëy la ci li def manufacture def ci àdduna bi ci image bu mu mu bu mu joué ci développement industrie culturelle et créative en Afrique te foog naa ne manufacture lu mu wone ci adduna bi à travers les tapisseries yi nga xam ne ñu ngi koy wekk ci institution internationale yi ci euh, présidence yi ci palé yi yaakaar naa ne manufacture ñu ngi représenté Sénégal ci image bu bu baax ci image bu rëy. 50 bi dañ ko organiser c'est vrai que anniversaire 50 ans ça se fait mais c'est surtout pour que ñu gën a promouvoir manufacture ñu wane manufacture liggéey bi mu def mais aussi ñu won ñu wane li ñuy def actuellement ci diversification bi du côté formation bi ci li nga xam ne euh, manufacture mun na ko mun na ko wane pour jaay euh, produit yu nga xam ne moom lañ produit donc promotion boobu ñu ngi ci à travers exposition bi ñuy def à Dakar mais aussi activité nga xam ne ñu ngi koy def fii Thiès pour que aussi ñu gën a xam manufacture parce que problème mu Thiès mooy waa Thiès mooy xamuñu manufacture donc yaakaar naa ne euh, tey occasion la suba nañuy commencé journée porte ouverte ni ñi bu ñu ñëwee gis euh, exposition bu ñu def dinañ gën a xam mani manufacture te yaakaar naa ne dina gën a nekk fierté pour tout Thiessois et au delà tout Sénégal waaw yaakaar naa ne président Senghor euh, ku xarañoon la ci culture xamoon luy rôle tapisserie mu def ko instrument de diplomatie ba saa yu voyagé daf ko doon offrir euh, président saa yu doon fu mu doon dem mais aussi saa yu amoon gan dafa doon ànd ak moom fii ci manufacture mais je pense que euh, tey directive bi nga xam ne président Macky Sall joxe na ko pour que service état yi wala entreprise yi jënd tapisserie yaakaar naa ne directive boobu dina jëmale manufacture ci kanam te foog naa ne manufacture fu mu nekkoon yaa y a dina gën a jëm ci kanam jafe-jafe bi moo nekkoon écoulement produit parce que dañuy ràbb euh, di xaar euh, nit ñi ñëw jënd mais foog naa ne promotion bu ñu def ak programme bu ñu tëral ak exposition itinérante bi ñu ngi commencé am ay réaction te yaakaar naa ne loolu dina tax ba ñu mun a écouler suñu produit yi te loolu en écoulant les produits yi dañuy yokk te eh, kër gi day gën a du ñëpp a mun am tapisserie parce que tapisserie c' est un objet euh, de luxe loo xam ne vraiment dafa cher Sénégal yëpp mais am na ay tapis yoo xam ne ñu ngi koy rab yu cherul les tapis de prière les tapis de sol nga xam ne ku nekk mun na Sénégalais mun na ko jël mais ñun yaakaar nañ ne euh, am na Sénégalais yu nekk fii. dañ leen di intéressé dañ leen di gën a intéressé pour que ñoom ñu gën a xam tapisserie yi ñu xam lan mooy rôle tapisserie pour que ñoom aussi ñi nga xam ne am nañ moyen ñu mun a jënd tapisserie voilà merci. mais il faut donner mooy d'abord ni ko Seyba waxee léegi ñu boole mbooleem ñi nga xam ne. bi EMSAT taxawee ba léegi bu ko président Senghor sampee ñoom ñëpp ñu ngi xeex guddi bëccëg ci condition yu neex ci condition yu naqari pour que manufacture bañ a bañ a jóge fi mu nekkoon euh, dund nag doomu aadama si boppam day taxaw wér sëgg siggi manufacture tam foofu la jaar am na ay jamono mu rafet ba tool foo tourné di ko wax ñu dem moom yàgg mu xaw a am ay jafe-jafe waaye nag ci jafe-jafe yi ci lañu mën a xàmmee jàmbaar yi ndax si moment boobu la ay jàmbaar takku te mbir mi ba ñi nga xam ne tey équipe bi ko téye ñëw ba gën a konne liggéey bi ñu nekk nag si juróom fukki at juróom fukki at bu doon nit la dañuy wax ne dootul nekk xale dootul sax nekk waxambaane day nekk kër borom kër boo xam ne bu nekkee kër baayam dañ koy xaw a xoolaat bu nekkee te téewul këram tam dañ koy xaw a xoolaat loolu moo tekki ne ku am juróom fukki at bu doon nit la da ngay mën a demal sa bopp mooy téye sa bopp am ak lépp lu si war a mën a ànd manufacture moom ak Talla Sylla ñoo maase te xam nañ Talla Sylla nag moom tamit si wàllu boobu lim mu war a def yëpp mu ngi koy def moo tax manufacture tam bëgg nañu jëmm juróom fukki at yooyu mu am mu maase moom ñu ngi sant yàlla nag bi nga xam ne président de la République Sall am na Pastef pour gunge leen pour jàppale leen président moom conseil d'administration Momar Gueye wax na ko euh, état bi mu ngi leen di jàppale bu baax a baax a baax waaye nag liggéey ñu ñu jàppale na si fekk loxor borom président li mu mën mooy santaane li mu mën mooy joxe ay moyens waaye li nga xam ne moo lal manufacture mooy xereñ mooy mën a liggéey ak xereñ ak gëm liggéey bi loolu nag ñi nekk fii si manufacture muy artistes yi muy ñi xam ne ñooy liggéey si mbir moomu ñooñ ñoo yore loolu d'abord moo tax ñu ngi leen di ñaax ñoom ñëpp ñu gën a góorlu xam ne manufacture seen manufacture ñoo ko moom dëmb ñoo ko moom tey ñoom ñoo koy moom ëllëg ñaareel bi tam euh, ñu delloo njukkal gannaaw bi ñu delloo njukkal ñu fi njëkkoon a jaar ñu delloo njukkal ñi nga xam tamit wax naa ko léegi léegi mooy ñu nekk ci kuréel yi di jàppale manufacture maire wax na ko saa su ne bu amee gan dina fexe kooku doxantu fii te doxantu mooy indi xool xool mooy indi gis gis mooy indi bëgg te nag dañuy wax ne gan moom mën nañ ko tere lu ne suuf ñaari mbir ñëw xool dellu ne tere moo tax ma monsieur le maire ñu lay gërëm bu baax ci saa boo amee gan indi ko fii mu doxantu fi xool gis tapp yi ak yu mel noonu ñu ngi delloo njukkal boobu tamit monseigneur André Guèye bi nga xam ne waxuma ñaanam yi rek kese waaye moom si boppam bokk na si jikko boobu saa bu amee gan dina ko indi fii ah, ma bëggoon nag ni ko maire di defee ni ko monseigneur di defe ñun waa ñun waa cees ndax nag léegi moom cees laa bokk ndax boo nekkee gouverneur Thiès moom Thiès ngay bokk ñun waa Thiès ñu fexe ba kenn duñ jam naa ni damay faral di wax toujours et je répète paraphrasant Lamine Gueye que les Thiessois sont pour aimer Thiès d'un amour à arracher de larmes Thiès waay dañoo bëgg Thiès Thiès ba ba dañu sax dañuy war a dañuy xaar wax dañu dañu am régionalisme loolu nag bu bu fekkee loolu am na te muy dëgg te manufacture xool ne tapp yi nga xam ne ay millions lay jar kenn mënu ko am wala ñu bëri mënuñ ko am waaye nag ñi nekk ci salle bi yëpp na muy góor ñi ci basin yu rafet yi ak jàkkaay yi muy jigéen ñi ci takkaay yu rafet yi ak bopp yi rafet yi ma jàpp ne ñoom ñëpp war nañoo mën ku nekk. ku si mënu si jëlee tapis pour sa kër nga tapis lu mu bon bon bon nga jëlee tapis de prière nga bugg sa kër muy sa muy sa sa sa jullikaay waaye mooy surtout mooy sa lëkk li lay lëkkalee ak manufacture pour wane ne que man mii Thiès waala waaye sénégalais laa d'abord waaye Thiès waala et je soutiens les manufactures sénégalaises des arts décoratifs xam naa ne bës bës ni ki nag saa bu ma dematee ci benn kër dinaa yór xool ndax tapis baa nga fa bu ma dinaa mën a seede ne ñu si ñu jàppalee manufacture lañu te seen ceesité ceesité lañ koy waxam seen ceesité wër na lo wër na péng bu fekkee ne nag gisuma fa manufacture bu gisuma ko foofu dinaa dinaa dinaa am xel ñaar loolu mooy li nga xam ne mënu ma ko woon ñàkk wax si wolof di gërëm ñëpp di gërëm directeur de cabinet bi nga xam ne moom la ministre bi yónni mu ñëw ne ma gouverneur yaa fi toogal ministre bi toogal fi yeneen ministre yi comme naa la fekk si ma bàyyi la nga lire discours du ministre bi ak ak ñeneen ak ñi fi kële nekk yëpp di gërëm ñëpp di ñaan nag bës la rek dañuy wax ne bés bu nekk dina am benn li nga xam ne mooy mel moom la jàpp muy mandarga bi lii mooy vernissage bi waaye am na bés yu ko jiitu am na bés yu si topp ñuy ñaan nit ñi ñu fekkee bés yi koy topp gannaaw bi lii passé maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wa salaam. permettrai de commencer par monseigneur André Gueye que nous saluons tous euh, monsieur le gouverneur Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Culture, Monsieur le président du conseil d'administration des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès, Monsieur le directeur général, je voudrais, à la suite donc de cette liste, saluer l'ensemble des délégués de quartier, les imams, les notables de Thiès, les invités. Saluer aussi particulièrement la veuve de Mbaye Gana mais surtout à la suite de la minute de prière avoir une pensée pieuse pour Léopold Sédar Senghor notre premier maire c'est lui qui a été à la base justement de cette grande institution dont nous fêtons aujourd'hui les 50 ans mais pensez aussi à Pape Ibretal et aux différents pionniers qui ont été à la base de cette grande œuvre. Ce sont eux qui, par leurs pensées et leurs actes, ont eu à tisser les manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir la mission de poursuivre cette œuvre. c'est dans la synergie, c'est dans la solidarité, mais surtout dans la dextérité des travailleurs de cette institution que nous allons y parvenir. Notre engagement est grand dans ce sens. Ce n'est pas une affaire de discours, donc euh, je ne poursuivrai pas. Je pense qu'aujourd'hui, Nous avons des invités, mais nous avons aussi surtout le gouverneur qui représente véritablement l'ensemble de l'État dont nous faisons partie. Nous avons lancé Caïtiès et nous avons vu le déferlement vers Thiès kon dañuy wax macha allah nit ñaa ngi ñëw ci niñ leen woowee yàlla na ñuy ñëw ci jàmm di fi fekk jàmm di fi fekk it Euh, kuréel yu mel ne bii nga xam ne say ba muy xam na ni juróom fukki at ci ginnaaw may doog a juddu maa moom ñoo maase kër gi looloo waral tey jii maa moom danoo war a tege rek di déglu ñu exposé ñu fee ñuy déglu boroom xam-xam yi fi nekk ak ñi nga xam ne ñoom ñoo am lu ñu wax ak ñiy ñaan mag ñi fi nekk ñëpp ñu leen di yóbbante suñu baay Souleymane Kanté ak yeneen imam yi kii nga xamante ni aussi moom moo nekkoon soxna wu Mbaye Gane Kébé teew fi tey teewaayam rek représenté na njabootu ñëpp ñi nga xam ne liggéeyoon nañ ba barab bi nekk te teewuñu fi tey muy Pape Ibra ak ñëpp ñi nga xamante ni jaaroon nañ fi ki ñu fi nekkoon directeur aussi te am na ñu fi teew tey ji ñoo ñëpp ñu boolee gërëm leen waaye am na yeneen kàddu yi gën a am solo que sama bos pour jottali loola en tout daal Thiès daal am na mbégte ci dalal leen juróom fukki at ya ca kanam nag ñu ngi ñaan ñu bëri ñu bëree bëree bëree bëri surtout délégué de quartier yi ñu fekke ko boobu ñuy raam ah loolu la ñuy wax yàlla na ngeen raamaan bu soobee yàlla jërëjëf